tey dañu woote woon euh, ndaje fii ak taskati xibaar yi pour wax leen situation bi Soleil tollu tey parce que comme ni ngeen ko xamee depuis lu toll ci ñaari at ñu ngi xeex ñu ngi yooxu ñu ngi woote wàllu mais dañ jàpp ne suñ yooxu ak suñ woote wàllu xëy na duggul ci nopp yi ñu waroon a dugg ndax euh, jëfin bu bon ak yorin bu bon bi nga xam ne nii yaa xam moom la yoree kër gi ba léegi nii mu ngi continuer lim nekkoon bàyyiwu ci dara euh, bi ci jiitu mooy directeur général boo xam ne yow doo doo liggéey te ne viens pas travail ndax euh, bureau bi nekk ci kaw kenn xamul kañ la fi gëj a dugg ngir liggéey nee dafa daw bureau parce que dafa am ay fenkat ak ay naafeq yoo xam ne nii ñoom lay daw moo tax mu ne ñu aménagel ko beneen bureau foofu nga xam ne mooy maison de fonction villa du d foofu aussi may fàttali na moom malgré lim am maison de fonction am na aussi indemnité de logement boo xam ni presque toll na ci mille moom la cumule ak maison de fonction bi mu yor foofu nag lañ ko aménagé na ne bureau bureau bi sax moom ñun de kenn mosul gis bureau bi turi bureau rek la ñuy dégg te bureau bi li ci gën a doy waar mooy balaa mu fay ñëw minuit passé waaw ban liggéey ngay def boo xam ne nii yow balaa ngay ñëw ci bureau bi minuit passé defu fa dara lu bu ñëwee. raay ay xaram naan ataaya parce que kër googu daf ko transformé par def ko ngédd xar bu ñëwee raay ay xaram lay def naan ataaya dem beneen bi mooy yorin bu bon ci caxat caxatee li nga xam ne nii lu lu soleil dese as néew ci ay koppor ndax euh, li muy jënd ci papier fii moom stocké na papier ba amatul fu mu stocké ndax euh, marché papier yi moom kenn xamul te marché yoo xam ne marché yi doy waar da wax nañ fi léegi ne am na benn marché boo xam ne ni fournisseur bi 36 pour cent rek la ko exécuté maanaam jaral na Salé loo xam ne nii toll na ci 30 millions de francs CFA ba léegi nii France ni xëddeen gisuñu xaalis gisuñ papier. beneen marché boo xam ni kooku waxuñ ñu joxaat ko en 2023 bii beneen marché marché boobu fi ñu wax ak yow ni tey 57 euh, pour cent rek la ko exécuté te xëy na ni beneen marché bi demee rek lay demee. 2023 bi lim ci yor ay facture yoo xam ne nii kenn certifié ko amul benn contrôle bu ko certifié toll na ci 200 millions de francais CFA fii daal li fi nekk euh, caxat caxatee alal réew mi la ak fo wax nañ fi léegi euh, recrutement ay nervi ndax euh, même bu dëkk bi jaxasoo jaxasoo am na kër yoo xam ne du ay nervi moo leen di yor mais ay forces de défense et de sécurité ñun nag bii loolu amee mu ne day recruter ay nervi yooku nañ wax ak moom na ko gendarmerie aan mu ngi fii soriwul demal bindal boo bindee ñu jox la d'autant plus que en deux mille en en deux mille vingt deux août deux mille vingt deux ñun bi ñuy grève ay camion gendarme la fi wàccee ñun ñoom ñu jàpp ñu je pense que voilà ku mën a indi ay camion gendarme nag di jàpp ay travers wax dëgg yàlla xanaa am ay gendarme yu sécuriser entreprise bi tëwu la. mais loolu ñoru ko li ko ñoroon mooy li nekk ci ginnaaw recrutement nervi yi li nekk ci ginnaaw recrutement nervi yi du dara la dul xaalis parce que trois jours ay quelques personnes ñoo xam ne ni mënuñ sécuriser dara wax dëgg yàlla ndax man bi ma leen gisee bi may dégg sax ay nervi nervi foogoon naa ne ay nit ñu mën a sécuriser ñu mët nit lañ indi ñu sécuriser mais ay ñoo xam ne ni man lañ toll mënuñ sécuriser dara ñu fay leen trois jours trois virgule six millions de francs CFA te xaalis boobu ñu ngi ko fay ci turu benn société boo xam ne nii ci wàllu informatique lay liggéey kon foofu noonu taq na suuf mu lancé bi aussi benn marché ne day construire benn hangar ak benn cafétéria euh, hangar beeg cafétéria moom entrepreneur bi moom jël na avance am 7 millions bi mu jëlee avance 7 million ba léegi kenn gisu ko dem na yoonam jëlaat benn benn garagiste mécanicien na da koy jox marché pour mu réparer ay véhicules kooku tamit ñu avance ko xaalis kooku dem yoonam gisuñu ay véhicule yu ñu réparé gisuñu xaalis lu mel noonu daal wax dëgg yàlla ñun mooy suñ quotidien teg ci moom liggéeyul te at mu jot mu jël congé te bu jëlee congé dafa am lu muy àndat bu jëlee congé dañ koy fay ay indemnité de congé indemnité de congé day ëpp 20 millions moom day fay ko indemnité de congé ba pare weer bu ci topp mu jëlaat salaire am waaw te koo xam ne yow ci noppalu nga dëkk wax dëgg yàlla yow liggéeyoo ci noppalu nga dëkk yow looy doyee congé congé kay pour ñuy liggéey la mais yow liggéeyoo mais chaque at nga jël congé boo jëlee congé boo ñëwee ñu fay la sa xaalis weer bu dee ñu fayaat la nga dem tëdd sa kër di xaar booleen na ay dette ay avance avant sur salaire avant sur congé ñetti weer yu ne nga bind nañ ma jox million cinq cent nañ ma jox di tiire journalam bi fii du fay borom yi daal moom ak bori libération bu ko boolee mën na 63 millions 63 millions yi fan la koy fay moom moo wax ñëpp dégg ko mu ne moom il part en février 2024 avec le président la république fii ba février 2024 revenu yu muy am soleil boo ko boolee mënul fay borom yi kon moom naka lay def pour payer ses dettes te loolu depuis le début ñun waxoon nañ ko nee naa ko amoo droit di fi am ay bor parce que tu n'es pas un agent permanent du soleil amoo droit am fi mais dégluwuñu muy def lu ko neex moo tax nag ñun comme ñu ngi wax ba léegi ñun waxuñu sax ne nañ ko dàq président moo am prérogative dàq ku ko neex mais li ñu wax mooy nañ fi indi rek mission d'audit ñu auditer ñu xam bu fekkee ñun dañ koy sosal ñu ñu ñu topp ñu pour dénonciation calomnieuse kuy sos k dañ koy topp pour loolu. bu fekkee nag li ñu wax dëgg la yoon dal ci kawam ndax euh, fii askanu alalu askan bi ñun moom lañ yor fii alal yow ci nga bokk keneen ci la bokk kon c'est inacceptable jaadul ñu bàyyee ko kenn mu koy caxat caxate comme koo xam ni këram la nekk wala kër papam loolu du dëgg du yoon dégg nañ ko fan yi dang mu muy fëgg dëndam di bàkku nana moom président la république daf ko bëgg waaw mais ñun tamit jàpp nañ président la république bëgg nañu parce que nous sommes sénégalais nous sommes tous égaux devant la loi fii ku fiy def ku fi wàcc yoon je pense que euh, dañ war a tegu sa kaw te yaakaar naa kii li mu commencé buñ ko arrêté wul fii ak du ma la ay adde fii ak ay weer rek di nga fi gis loo xam ne nii li ngay gis dégg ay poste li ngay dégg feneen ngay dégg soleil doxalin bi mooy euh, tey so soleil suñu ressources yi dafa wàññeeku ndax euh, chiffre d'affaires tey buñ buñ daan am fukk tey juróom-ñaar la ñu am bi mu ñëwee ba léegi lépp luñ daan am day wàññ mu ngi wàññeeku moom mooy gën di yokkute travers ci moom dañuy gën di wàññeeku parce que ressource entreprise bi day wàññeeku lu ma ko waxee chiffre d'affaires bi day wàññeeku organisation aussi du travail ndax balaa nga naan déw liggéeyal nga liggéey xam nga boo liggéeyut tëdd sa kër mënoo ne kenn demal liggéey koo wax liggéeyal mooy la liggéeyu ma ni yow boo bëggee nag di liggéeyloo ay nit yow da ngay njëkk a ñëw liggéey joxe la bon exemple mooy l'organisation du travail il y a beaucoup de manquements ici dans l'organisation du travail wax naa ne la soleil amul sax service ressources humaines fi ñu toll nii amul projet perspective yaa xam ne bi mu ñëwee ba léegi wax naa ko léegi bu ngeen génnee mën ngeen ko filmer ci ginnaaw benn bilan rek la am mooy benn pentre ba mu fii ci ginnaaw bu ngeen génnee mën naa leen yóbbu ba foofu ngeen filmer ko bu dee am na lu mu mën a fëgg dëndam ne def na ko soleil mooy loolu benn pantre la fi tabax sa amul stratégie digitale amul stratégie commerciale bi mu ñëwee ba léegi le journal est passé de 32 à 24 pages maanaam moom dans tous les domaines yokkul waaye dafay wàññi ah wàññi bi nag <laughs> ressource entreprise day wàññeeku bu ressource entreprise di wàññeeku nit ñi li ñu am li ñu am sax moom bi mu ñëwee la njëkk a xool ndax moom bi mu ñëwee cag salaire yi la njëkk a dem xooli ce que chacun gagne bi mu fa jógee ñëw ne yéen fu gagné beaucoup trop voilà léegi xaaral jël jaasem diw xaaral ma neexu ma dagg naa salaire am diw neexu ma affecté naa ko diw neexu ma xaaral ma wàññi ko moo tax euh, kër gi jaxasoo jaxasoo ngeen gis tey gis nga fu ngeen gis miir yi ñu ngi koy peinture nit ñi jóguñ pour xeex ngir bëri histoire mais instinct de survie la dañuy jóg ngir xeex parce que boo xeexul sa këru liggéeykaay da boo moytuwul di nga ko ñàkk te nga sa famille dinañ retrouver wu dans la rue je que loolu moo tax nit ñëpp di xeex.